l'atelier de l'hospitalité. De l'hospitalité. De l'hospitalité. Sen Teranga TV, c'est vous, c'est partout dans le monde. Sen la télé de l'hospitalité. De l'hospitalité. Sen la télé de l'hospitalité. de l'hospitalité. l'atelier de l'hospitalité.

l'intérêt de l'hospitalité. De l'hospitalité. De l'hospitalité. de l'hospitalité. De l'hospitalité. De l'hospitalité. vous, c'est partout dans le monde. Sen Teranga TV la télé de l'hospitalité de l'hospitalité Sen Teranga TV vous c'est partout dans le monde Sen Teranga TV la la télé de salaamaaleykum mbokk internet yu suivre Sen Teranga TV la télé de l'hospitalité mbégte la ñuy am saa su nekk dala leen seen émission entretien du jour nag tey nag 100 pour cent people la ñuy waxtaanee ma dalal si nag euh, ñaari kàngam ñaar ñoo xamante ne influenceur lañ doom lañ ci wàll balaa Ballago Seck le chanteur du peuple muy jumeau yi muy Ousseynou ak Assane ñu fas yéene waxtaanee yéen a ngi dégg fan yi Africrea li ñu leen tànn boole leen ci meilleurs influenceurs yi nekk ci Afrique am bu bëri bu si jug nag daal di ciy judd ñu fas yéene waxtaane leen man Bilia ak ñoom ñu fas yéene toj yax bi ba mu leer naññi mu nuyu ko bu baax a baax jumeau ziar naa la <laughs> micro bi micro bi waaw mën ngaa nuyoo c'est bon waaw c'est <laughs> àdduna salaamaaleykum Sénégal maa ngi ziar ñëpp rawatina tey seen bi dalal ñu muy seen teranga teg seen empreinte marqué seen empreinte ba tey àdduna ñëpp di leen siifar dëgg neexul rawatina di béggee fee ma jóge muy pikin muy sama dëkkuwaay ndax nit ki loo rëy rëy munoo rëy munoo gën a rëy fi nga juddoo di nuyu ñëpp di leen ziar waa pikin gi yëpp di béggee ñëpp waaw jumeau euh, di dalal keneen ki nag euh, dafa am tuuti retard mais mi ngi ñuy dab léegi léegi ñu daal di koy dalal fii tam ci Sen Teranga ci émission entretien du jour jumeau. waaw ngeen di influenceur nag yow ni nga waxee Sen léegi nii dafa marqué empreinte am te loolu kenn du ko werante waaye yow tamit yéen da ngeen a marqué seen empreinte ci wàllum euh, dëkk bi tamit ci wàllum influence ci wàllum ngeen topp Wally balaago Seck ba Wally def leen doomam jumeau su ma mënee wax lan moo leen tax a dugg ci wàllum influence bi ngeen waaw si wàllum influenceur man mun naa ni yàlla ak mbiram yàlla ak nu muy créer doomu aadama ndax ñun ñëwuñu bëgg siw wara ñu bëgg fu ñu toll ñu ni les jumeaux non non xëy rek mu ñëw naturellement kenn jàppul suñu loxo forcé ñu si dara dañoo toog rek te sunu téléphone rek affaire yi nekk naturellement ñëw nii ñëw nag ëpp ñu loxo sonal ñu lool ba àdduna xam ko mm-hmm. ndax les jumeaux Afia moom kenn dootu leen présenter si même réew xanaa beneen réew mais fii fexe nañ ba teg fi suñu empreinte ba ñépp xam ñu. waaw te ñoo ko xeexal suñu bopp. waaw du kenn nag ñun kase la. yéen dong la ak seen liggéey. mais jumeau tey boo leen demee ba euh, Africrea daal di leen tànn boole leen ci influenceurs yi mën nañ wax meilleur ci Afrique euh, nana leen def émotion la maanaam euh, nouvelle boobu bi ngeen ko yëgee lan la def ci yéen. waaw mooy lu dul sant yàlla xam ni influenceurs yi bari nañ fi te suñuy mbokk influenceur ay liggéeykat nañ kon ñu ni ñuy liggéeyee mais yàlla suñu borom mooy xool nu ko neexee rek mu defee ko noonu amaana ñoom ñoo ñu suivre ba xam ñu ba xam ñu ñooy ñan mais ñun sax yàlla xam na ni xamuñu leen. dañoo jékki saay rek téléphone yi sone affaire yi dugg téléchargé ñu xool muy muy yëf yi ñu liir suivre si nañ gis affaire yi. Mm-hmm. xam ni nag jumeau Afia kon am na lu ñu teg. ba tey ay yeneen dëkk ak dëkk di leen woo noonu la ñu yëf dikkee waaw mais nag bettuñu ndax nit ki doo xamee foo jëm gëm sa bopp di liggéeykat lu ñëw waru laa mun a bett man lu ñëw duma bett ci sama yoon bi ma nekk lu ñëw dafa war a ñëw waaw te yàqamtuwuñ ko dëgg la euh, jumeau ma daal di dalal beneen jumeau bi beneen jumeau bi moom dañ koy alamaan tey ndax moom kafe la naa naani woon rek waaw waaw taalal taalal taalal <laughs> fële voilà mais nag defuma dara si moom la. Hmm. waaw. Hmm. voilà parce que dañoo julli jumaa pare mu génn dem. Hmm. bala fa sa ginnaaw. bàyyi ma place si laa ko gëj a ba léegi sànq la ma woon naan ma xaw ma ay lan. kon ci moom la. kon si moom la yat bi ci yow lay dal. voilà bëgg naa. waaw xiiru mafia ci yow lay dal. na lépp dal ci man. Jumo dalal dañ la si seen di la jaajëfal bu baax a baax. ah lii de moom wax dëgg yàlla comprendre ah. xanaa di kontaan aussi tamit. yàgg nañ ko bëgg. dëgg la surtout yow Tima yow nga nekk nit ku baax nit ku simple. Mm-hmm. gars na fii Bilia lañ xam. ah Bilia waaw bàyyi tur boobu nag. Bilia ah? moom mu nekk. <laughs> fii ne Bilia mu nekk nit ku baax. Mm. comprend nga nekk nit ku simple sérieusement. Mm-hmm. chaque jour mais Zimo mais kañ ngeen ñëw. léegi Zimo yi ñëw nañ. waaw ah, ñu dalal leen. waaw mu tombé ak Africrea daal di leen tànn nag. boole mm-hmm. leen ci meilleur influenceur yi nekk ci biir Afrique. waaw la def waaw. xanaa mbégte rek parce que booy liggéey ak say morom. comprend nga nit ñëw seppi ñëpp jël la loolu noonu sant yàlla la aussi tamit loolu tamit yow dafay wan ni ñun kon ñun ñi ngi job ñu ngi liggéey. Mm-hmm. voilà sant yàlla kasa la aussi tamit may jaar foofu noonu di féliciter Fat jaay parce que moom moo dem. Mm-hmm. comprend nga te du demee dafa mel ni zi mooy dem nañ. Mm-hmm. Euh, damay jaar foofu rek naan ko. Euh, Jean yàlla ko yàlla may ndam si si yow li nga xamante ne moom la dem jëli ji muy lan suñu victoire ñun sénégalais yi mhm. comprendre nga yàlla ko yàlla may ndam yàlla ko ndam bi jikk mhm. voilà macha allah yàlla na ko mhm. amee ndam dafa mel ni sénégal yëpp ñoo am ndam ndax euh, deretu sénégal bi bu duggee moom ñëpp la dugal mais nan ngeen gisee gem bi yéen biir yéen seen biir yéen influenceurs yi dafa mel ni juboo amul si yéen 100 pour cent ndax euh, biñ ci tànnee ñett ci yéen muy Faa ay dara yéen jumeaux yi tànn tamit. Euh, Hélène Hélénita mi ngi ci. Hélénita ak ñeneen ak ñeneen ay jumeaux waaw waaw ñoom ñëpp ñu tànn leen mais dafa mel ni dafa am ci yenn influenceurs yoo xamante ni d'accord ñu ci choix bi ñu leen tànnee ndax nee nañ jàpp ñu ne def ngeen benn liggéey bu am solo ci réew mi bañ wan leen mën a fal boole leen ci meilleur influenceur yi ngeen gisee kàddu yooyu. loolu ñun dégg nañ ko ndax fi Sénégal la. Mhm. mun naa ni Sénégal fii mu tollu du buntu nekk. parenteer la. ndax xat lu waay di wax rek si doomu aadama na nekk lu rafet. nekk lu gën ndax nopp amul kibéer te ñun dañuy dox. di dox ba dégg buñ déggee nag xam nga jumeau moom yaram bi dafa gaaw a tàng moom noonu la mel. bu yaramam tàngee dafa def vidéo directement dugal ko. Mhm. ne ko yow influenceur bi yaa ngi wax si ñun. yàq suñu der mais du ñaaraatee dinañ taf sa foto du ñu yegg sax foofu. est du ragal ndax tey yéen boo boo leen ñeme woon dëgg doo leen tudd influenceur bi kese da ngeen di tudd tur bi daal di jaar directement ci turam. mais est-ce euh, xam nga tey non xam nga xam ragal ngeen xam nga du affaire de ragal. Mm-hmm. affaire da toog waxtaan la. waaw. warul sax si ay vidéo xam nga si si la waroon njëkkee. ñu toog ñu laal verre. toog waxtaan ak moom ne ko lii pour lan mais débat lay indi mais junju dafa doy boroom xel. waaw looloo waral vidéo bi génn Zimo dafa junj mais du ragal du tàppet ndax Zimo Afia bu dëkkee Pikine ginnaaw syndicat kooku du ragal. Hmm, eh, ginnaaw raay jege la. caaro yëbbal booy Pikine ni moom rusloo nga leen. non pas de rusloo xam nga hmm. tey man yow du ma neexoon damay jël sama téléphone woo ko kan ne ko diw. Hmm. lii wag laa. mais diw moom dañu wax nag. comme xam nga man xam naa. non non la. mais yéen jubóo yëpp nag ñoo bokk ndey ñoo bokk. bàyyi non jubóo mu amul seen nañ benn nañ. pourquoi nga wax loolu. ah jubóo amul bu dañuy booloo daal di leen koy yéene. noonu tamit aussi damay d'accord. comprendre nga parce que tànn nañ ñëw. genre ñi nga xamante ni ñoom dëkkuwuñu fenn fu dul Sénégal. waaw juddoowuñu Guinée juddoowuñu fenn Sénégal lañ juddoo. comprendre nga. Mhm. ñoom seen normal ñoom ñu jël seen téléphone def seen vidéo dooleel ñu. muy man muy Fatou Ndiaye muy Hélène muy keneen ak keneen. non ñoom dañoo war a jumoo dogguma la. waaw dañoo waroon xool ñi nga xam ne ñoom lañ nominé. voilà ñu taf seen photo ñoom ñëpp. waaw mhm. ne leen ñi ngi leen ñaanal. yàlla leen yàlla may ndam moo gën a rafet. Mhm. ndax ñu ñëpp ay influenceurs mais kenn defu ko. mais kenn defu ko. mennum bada waaw Badanaajo Badanaajo laa gis mu samp dëggal boppam def vidéo si tamit vise yi defal nañu ba mu gisee ci bi nominé bi defal nañu suñu papa Waly defal nañu kon sant yàlla ku ko deful. Ndiogu ah. Afia. ñoom ñëpp ay Zokaas ba ci Zokaas. Zokaas ñëpp ah. def nañ ay vidéo ay jàmbur ay Bamba ku ne. suñu papa kii euh, te mu nekk jogante mm-hmm. Père Lamine Samba defal nañu invité nañu TFM nañu TFM loolu sant yàlla. te loolu si ñoom la waroon njëkkee. ndax ñun ak ñooñu ñoo bokk liggéey bi. dëgg la mmh. mais nag ñu jubóowoo leen seen biir. waaw ba tey dafa mel ni wax na dëgg. jubóowuñu waaw jubóowoo leen moom. waaw jubóowuñu de. nangu si. Mmh. parce la moo tax. Mmh. gi nga ni la quoi si kër la. lépp si xol la comprendre yow sa xol yow du yaatoo yow da ngay jël ñëpp dajale leen. dëgg ñun nag. ñun xam nga exemple suñu koor ku ñëw lan lay tax suñu exemple ñun suñu yi ak koo ci laal kenn ñun ñëpp dañuy jóg waaw eh seetlu naa ko yéen yi ngeen booloo. man looloo ma jaaxal sunu Sénégal bi ñu ne. Eh, déglu ma benn da ngeen di siisante man dem naa benn conférence de presse boo xamante ne artiste moo ko doon def mais influenceurs ya fa nekkoon ñoom mën naa commencé benn tour bi G la commencé benn bi B la commencé mais ñooñu da ngay gis ni à chaque fois ñoom dañuy wane ni ñoom ñooy influenceurs yu mag yi yu ndaw yi dañ leen boycotté tegee leen na leen te influenceur amul bu ndaw ak bu mag. ah mm, loolu dañoo leen wan ne leen bis bii nii ñun ñoo ko moom ñun ñooy influenceurs yi mag ndax ñoo gën a jege. artiste ah d'accord man ci moo appuyé ci Wally Ballago Seck. man leen ci Wally da ngeen di wane ni seen seen papa xewle. non non ñun. ñun ñoom ku ñëw dañ naan ñun ku ñëw dañ lay boole suñu bopp naan leen kaay ngeen liggéey. waaw doo leen siisaati. ñun xamuñu xamuñu ay xamuñu kër Wally laa nekk rek. ku ñëw dama lay wan ne fii sama kër la non man fépp laa yemale. yow xala ñun je suis ñun ay wallaax yow ñun yow dañoo ñun dunduñu showbiz xamuñu sax lan mooy succès parce que dunduñu ko dañ ko dundul ñun yow mënoo jóge Pikine si fan si biir baraak nañ dëkkoon jóge fa dañoo yëg succès yëguñu ko bark Serigne Touba. dëgg nu ñu mel ñun jàpp na ni ñëpp noonu lañ mel moom moom euh, chaque fois danaan ma yow. Mm. yow day doxee nii rek chaque jour dina la tromper parce que man noonu laa mel ñun sax man laay wax. ñun duñ la gisoon léegi dañ lay taf suñu. vie dëgg loolu moo xam naa ko. voilà ñu ngi noonu mm, mais tamit nag. lii dem jouer leneen. foo bi bari na de. billaay seen milieu yéen influenceurs yi. non ñi foo dafa bëri. non dañoo foo man maa ko wax. ñun nag li tax ñu si am trompé mooy. li tax ñu si am trompé ñun. Mm. mooy ñun foo ñun ku ñu jàpp ku ñu jàpp dañ lay jàppee kon jumeau Afia. Mhm. léegi nekk yow doo jumeau Afia. waaw dañuy <laughs> trompé. ñun looloo tax doo ñu trompé ñu dee ñuy bëgg xaru. billaay si saatu lay wane suñu bopp ci wàllum trompé boobu dama leen mësoon a jël ngeen wax ci Adamo ni seen nit la. waaw. ngeen gis fan yi Adamo ngi lëmbee TikTok bi. di ko jëmale ci jigéen joo xamante ne mi ngi tudd bébé Eva mu dajale xaalis somb tool ci 8 millions 44 mille jëmale ko ci. ku feebar kuñ naan Yado muy artiste comédienne ah. en tant que jumeau Afia ak ni ngeen mel ak Adamo boo leen ko doon jox conseil loolu leen koy jox ci kàddu yi ñaaw yi mu yëkkati te ko ci bébé Eva la boo xamante ni dem ba tudd ci benn waykat boo xamante ne day tagg yonent bi daal di yëkkati ne kooku trompé woon na ko ba ñu yàq euh, biir bi yooyu loolu kàddu yi rafet ñaaw yooyu est-ce que yéen di ngeen d'accord ni seen xarit ah. Adamo di ko jël di ko teg ci kaw jigéen wax dëgg yàlla moom nit kenn lu bon doo baaxee baax doo bëgg dégg lu bon doo bëgg gis lu ban man ñun foofu nañ nekk ñun si mu afia su lu baax nañ xam su lu baax nañuy yëngu Adamo lu mu wax bébé Eva loolu moom ak bébé Eva la du moom ak Jimon Afia mais lenn laa koy wax yàgg naa wax si moom te duma ko faral te heure bu génnee def na ko sudul noonu damay dal ci kawam fan yi paase dafa am si lu mu nekkoon na dem yëggaliwaat mas yooyu mu doon def si TikTok bi ñu koy may ay cadeau na dem yeggaliwaat loolu te bàyyi doomu jàmbur ji man loolu laa koy wax Adamo demal nga yeggali say mas Adamo Zimo jëlaat sa voix bi nga jëloon birki démb te bàyyi doomu jàmbur jii kii nit tëdd na feebar jug na dox ay jéego ba dajale xaalis mais loolu moom moo xam li tax mu def ko ndax kooku nitam la xam nga man loolu defuma ko. mais am naa xolu yëkkati ay millions jox kii tëdd feebar du ma ko yoroon. mais yoruma ko bébé Eva def na ko dajale na ko yóbbu na ko mais où est ba muy taxaw di xaañ lu ne bébé Eva lan la ko bébé def. defu ko dara. defu ko dara. na bàyyi bébé Eva na bàyyi tur yu muy tudd. def ko dara. Adamo lii moo tax ku ànd ak moom suba bàyyi ko. ndax ànd ak moom foog ni changé na mu ñëwaat di defaat lu mu doon def kenn xamul Adamo ban genre nit la. mais kàddu yi est-ce que du bébé Eva moo influencé Adamo ndax moom waxikati na ay kàddu ci jigéen même bu dee man jigéen laa damaa ànd ak moom mais moom moo ne moom góor bu ñëw indi xaalisam da koy mbaraan ba mu set lekk li mu yor bàyyi ko mu dem ndax moom ko ñëw doxaanee ko xaalis mu lekk la ba nga set. dafa kàddu kaddu yoo xam ne kaddu wax bi ma wax. Mhm. wax jooju laay tontu dafa am kaddu xam du génnee. wax jooju lay tontu li tax mu toog nag du ma toogee góor ñëw jox ma damay lekk ba mu rees lan moo tax mu wax ko dafa dégg wax wax jooju mu dégg la tontoo noonu mais nit par ça mu tontu kàddu te fekk loolu mu tontu nekkul si moom mais li nga ko wax pour moom mu fayu fa mu am lu mu la tontoo. c'est ça moo tax wax dañ koy dégg. c'est ça. Mm-hmm. man waxu internet du tax ma gëm kenn du tax ma dóor kenn du tax ma saaga kenn. mais yow naturellement nga jàkkaaroo ak Jumo Afia doo waxee dégg-dëgg. foofu laa ne. c'est vrai nañ jéem a nekk foofu te bàyyi fii ñu nekk amul sens. amul sens mu ngi noonu. waaw ah man de man wax dëgg yàlla man xamee nañ ma aadama. parce que day sax daf dara ma génn dal ci kawam. comprendre mais moom sérieusement yoon bi mu nekk mais c'est pas normal. billaay parce que la moo tax jigéen euh, jigéen moo ko jur jàpp doomu jàmbur comprendre di ko. di ko wax loo xamante ne naangisul ay dafa ëmb ay yàq ëmb bi ay léeg laa mais booy c'est normal mm-hmm. barke Serigne Touba et eh, frère Aada mm. waaw jëloon nga nag yoon bu normal jëlaatal yoon boobu yow faramaaren nga mm-hmm. yoon bi ne baaxul baaxul mm, jàpp ngeen ne yoon bi baaxul dara baaxu si du baaxoo ne dinañ topp yow naan ko jëlaatal beneen yoon bi mm-hmm. boobu noonu mu jëloon na dem jëlaat boobu parce que boobu moo baax boobu moo baax. yaa ngi tudd léegi ne Faramareen. mu mel ni Faramareen la waaw waaw bàyyi loolu. mu mel ni yéen Faramareen lu tax yéen ngeen bëgg coow. bëgg ci li nekk ci loo ah. xamante ni ci coow la ci showbiz. ndax bu ñu gisee ki di délégué Amar mu bokk ci Faramareen yi jege Waly Balago Seck lool ñu gis délégué taf. ci bët bi ni bët bi dañ koo agressé daal ko ciy gaañ mu demoon ci mariage Cheikh Déranger ànd ceeg Waly Balago Seck ñu jékki-jékki gis délégué Amar ma ngoog fotom ba ngi noonu ngeen xool ko ñu gis ko mu def tey <laughs> mu gis tey ñu gis ko tey mu def interview daal dindi loolu ba mu set wecc ne moom day showbiz yéen faramaare nañ ni nag yam ngeen sénégalais. comprendre ma dafa dindi taf bi ne lan. day showbiz. waa léegi. délégué ko. léegi loolu délégué la. ah faramaare ni la de. waa déglu ma rek. doo ma dégloo wallaahi dégg dëgg. mosu ñoo gis waa kër Sidi Diop bi def ko. ñoo gis waa kër Pape Diouf def ko musuñoo gis waa kër Momo Dieng def ko waa kër Waly Balago Seck yi lañ gis ñu def ko kon donc Faramareen ni la. waaw léegi loolu délégué amaar la moom seul mais les jumeaux à pied dañ fay toog di waxtaan. waaw maîtriser wuñu ñun délégué amaar fu mu nekk ñun fu ñu maîtriser mooy ñun jumeaux à pied fii ñu nekk temps bi. très bien jumeaux ñëw. ah yéen yéen ñemewoo leen délégué. déedéet non non. ah délégué bàyyi cadre ñeme de parce que yow fi ngay waxee ñun. waxoon nañ ma nag neewoon na moom. Ah. Euh, neewoon nañ ma bi yu mooy boo leen waxee délégué duñ ci tontu. si lan noonu. ah nee nañ ñeme woo leen ko. Zimo foo maîtriser fi ñu ne nii. fu ñu nekk Zimo. waaw nañ ne foofu nag wax jox mu wax mu jox ma ma jox. ah mi ngi noonu. ñu ñu ñu la si ah, délégué nii. non délégué Amar day suubis moo leen ko wax day suubis nañ ko bàyyi mu suubis. mais man tey hmm. man damay xool sama bopp di gis waali wala. waaw. ma jëmm ji xanaa gisuma man tamit si moom maa ngi mel ni waa waale waale aj na bu aj na aj na karaw ba ca balaa ko sekk aj na karaw ba ca kaw man tey damay gis sa bopp si Mar Yacine Mar Yacine eh waay Mar Yacine yow ñu mel ni gën a nuróog moom ah? fi mu xoolal kaanay ndaw yi nag kaanay ndaw waaw c'est normal moo ñu ko tuddee naan waale balaa ko sekk <laughs> ah waaw yàlla baax na mais nan ngeen pour terminer wax ji ak showbiz bi rek. waaw ngeen gisee fan yi showbiz bi xam nga showbiz bi dafa xaw a wàcc tuuti ndax géem yi fi mu doon neexee dafa mel ni camp yooyu dañoo juboo mais tey jii ju gis Sabel Dieng Paama organiser grand théâtre te ñu bokkoog moomoo benn baay ñu gis moomoo Dieng jour boobu daaw teewut. nan ngeen gisee loolu est-ce que tey yéen ñi ngeen bokkool benn baay bu ñu doon xew la yéen di ngeen bàyyi daal nekk ginnaaw doo leen ca dem. fa famille jàmbur de doo fa xamul dara da ngay maanu. famille jàmbur de yow nga ñu bëgg a dugal yow. mais da jël exemple mais famille jàmbur doo fa xamul dara da ngay maanu man maîtriser wu ma ñoom moomoo jee man fan laa maîtriser mooy sama kër man ji moo afia. famille jàmbur bu leen ñu fa dugal ngir yàlla. wax dëgg yàlla yàlla na yàlla defal jàmm. Hmm. noonu ni waajee màggal gi pour terminer. Ila Touba. Ila rek. Hmm. waaw seen safar gi. Ila Touba. Ila Touba. naa la. ilaa Touba. man sama plateau ku ma ci dalal da ngay ñeme wax te yéen ñeme woo leen wax jaajëfal naa leen. ilaa Touba jaajëf. waaw loolu tàggatoo ak mbokk internet yi suivre seen di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax gaa yi Teranga. waaw TV. Mhm. nag gaa yi ñëw. ndax man seen Teranga man bis ñu ko tey samp naa fi. waaw du leen neexee sax. Hmm. Zimo ñu signé léegi contrat nga toog foofu toog ma jël naa bi man. waaw hmm. gas ba mu xóot. ba dégg naa yéen. daam ku leen moom ba pare de. borom kër googu noonu tudd F dégg naa moo leen moom de. kuy F. F. non appel bee sonné rek moom mais moomaguñu. borom Feeling Dakar dégg naa moo leen moom de. ah, ah. non ko kooku kër googu sunu sunu. waaw xarit bamba contrat jàmbur. bamba ndeysaan xarit la suñu lépp la. te nit ku baax la. waaw sekk ak ñun teraanga bu dul jeex. yàlla na ko yàlla defal jàmm. mais daal jabaram mm. waaw. télé ban mais fii ma toog daal leer na. Hmm. télé bi leer na rek macha allah hmm. bi nga gën a leer yëpp. bii moo gën a leer ñëpp. <laughs> Jumo fu mu dem ne boobu gën a leer. Ah, ni ngay doxee bëgg naa loo dégg musuma dégg Jumo wax beneen télé leer. Jumo waaw gën teg yàlla xoolal sama tee bi nu mu mel. <laughs> mais man gis naa sama tee. Jumo. waaw maa ngi mel ni rond-point Dubaï mais dama lay wax dëgg. non. barki sëñ Ba ma xoolaatal sa bopp télé yëpp. Hmm. maa ngi fii. fii nga bokk. maa ngi si yéen. jaajëfal naa la leen leen contrat. Mar waaw jumeau dal jaajëfal naa si. kenn du moom ndeysaan ah kontaan naa wax dëgg yàlla yow moom sérieusement nit ku baax nga. Mhm. si tamit rek ñoo bëgg. dëgg billaay foo ñu romb jumeau li wala. comprendre xam nga waaw ñoo bokk papa. Mhm. moo taxit fii suñu kër la. dëgg yow foo nekk ñu ñu fa. bul tiit bu ragal. ndeysaan yow foo nekk rek. jàppal ni les deux mois à ñu ngi sa mhm. ah. dañuy def émission boo xamante ni maak yéen. waaw chaque semaine bu nekk deux fois wala benn yoon. ñu daal di traité actualité people. waaw ñu daal di koy waxtaanee fii metti amul ragal nag. amul ragal nag bi boobaa nag boobaa nag boobaa xam ne dina ma contrat si moom boobaa damay xam ne ma signé sama contrat. voilà maa ngi xaar plainte bu ne. mais dinaa toj fii. Mm. waaw jaajëfal naa leen di jaajëfal ñu ne woon ci régie bi seen caali ba seen di jaajëfal Cheikh Mbacke mu baax a baax Ndeye Fatou jaajëfal Ousin ak ba dara ñu ne woon ci ñoom tamit ñu ngi woon ci technique bi rek di jaajëfal ñëpp di jaajëfal mbokk internet yi di leen wax way leen di abonné di partage di aimer di bës cloche de notification bépp bépp programme bu dugg ci chaîne bi ngeen mën koo jot entretien du jour nag man la ak yéen. dalaloon fi jumeau Afia yi tey nag dañoo ragal waaye buñ fiy ñëwaat nee nañ dinañ wane deretu Pikine bi mooy daw seen yaram merci beaucoup. jaajëf. Sen Teranga TV c'est vous c'est partout dans le monde. Sen Teranga TV la télé de l'hospitalité la télé de l'hospitalité l'hospitalité.